rek noonu la suñu borom bi suuf doomu aadama waaye ñu dem ba yàgg science moderne dëggal ko nga xam ne dana dellu ci waxi suñu borom waaye dana indi nag lan moo waral xidda ji nga xamante ni lislaam digle na ko ci soxna soo xamante ni jëkkëram marital yi dafa wàccub liggéey wala mu tàggoog borom këram lan moo waral ji idda ak nukk nan la ko science moderne gisee kon minbarul islam a ngoog ajjuma lay doon vingt et une heures ci heure Italie ci rajo Xassida online lëkkaloog Touba Monde bi TV ki koy amal di oustaz Serigne Namby Gadj bu leen ko kenn nettali ngeen mën a dikk en direct andi seen contribution waaye jàng ci waaye ñenn ñett di ci fàttaliku ndax moo ni fa zakir inda zikri tanfawul muminin min barol islam kon ajjuma doon incha allah 21h heure Italie rajo Xassida online lëkkaloog Touba Monde bi TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والصلاة والسلام على سر الوجود ومدده ونور الأكوان آه، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأسابه وأسنى الخديمه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bokk jullit yi bokk taalibe yi seen bokkum taalibe Nafi Gadj moo leen di nuyu bu baax eh, te leen ziare tey ñëw ci seeni émission bi ñu tuddee minbarul islam tey tàmbale ci nuyu boobu Cheikh Sidi Mokhtar tey tàmbale ci nuyu boobu eh, Serigne Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Bassir Mbacké mi nga xam ne tey jii moom la ñuy xoolee Sëñ Touba ñu ngi koy ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool. ba lim lépp bëgg ko def mu def ko ni mu ko bëggee di ñaanal Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem di jaare mbooleem euh, xalif yi nga xam ne yëpp ñoo jëmmal yoonu murit ak mbooleem bokk jullit yëpp euh, di fàttali rek ne émission bi euh, ñu ngi ci feggoog ci technique bi Modou Mbaye Thiam kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Milano ci studio Serigne Mountakha Mbacké Euh, kon nag euh, mbokk yi niñ ko xamee rek euh, émission bi ñu ko daan tàmbali danañ tudd suñ mbokki mboolem auditeurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel bu baax émission bi waaye yàlla dogal na tey jii xam naa dañu koy ñaan rek ba beneen yoon incha allah ñoom ñëpp ñu tudd seen waaye daal ñu ngi ziare mboolem mbokk yi nga xam ne yëpp émission bi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax waaye itam rawat nag rajo Xassida online kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm mu mel nag tey thème bi ñu war a waxtaanee incha allah tabaraka wa taala euh, di tomb bu am solo mu di li ñuy tuddee alquranul karim wa tibul hadis alquranul karim et la médecine moderne maanaam ci biir loolu nag ñu tànn ci alquranul karim ak lu ñu tuddee wa in wa injaabul mar'a maanaam alquranul karim et la reproduction humaine la Saint courant et la reproduction humaine maanaam naka lay nit di sosoo ba fi muy sippee maanaam fii jigéen di tàmbalee ëmb loolee mu ëmb fi mu période bi muy jaar ba nekk nit ba li alquran suma ansanaahu xalqan aaxar loolu la ñu war a jàngat incha allah bu ko defee loolu dañ koy jàngat jàngat bu gàtt su ko defee nag ci ñaareelu tomb bi ñu ñëw leeral ci leeral ci naka naka naka la naka la maanaam euh, Euh, lu waral jigéen maanaam di iddawu lu tax lislaam na jigéen na iddawu loolu danañ ko leer scientifiquement waaye lu waral tim jigéen su gisee mbërëg baa mu gis dëretu wasin lislaam tere euh, jëkkëram jaxasoog moom loolee tim danañ ko leer scientifiquement euh, kon xam naa ne rek ni ñu ko waxee léegi ñi ngi tàmbali ci leeral ne lu jiitu maanaam euh, lu jiitu doomu aadama di bu baax ci wàllu xam-xam maanaam pas-pas yi nga xam ne daal moo jiitu woon euh, ci boroom xam-xam ci seeni gëstu dañ daan wax ne maanaam weer wi dafa am ak jeexatal maanaam ci ci mbërëbu jigéen loolu pas-pas la woon boo xam ne buñ gëmoon la waaye loolu tey xam-xam weddi na ko waaye ñu tegaat ci beneen pas-pas ne li ñu tuddee janiin janiin mooy li nga xam ne doomu aadama bu tàmbalee sos nekk ci biiru ndeyam loolu li ñu tuddee jënin nee nañ nee nañ fi muy formé wala boog doomu aadama ci li muy formé wow mooy ci deret yoo xam ne dafa nekk ci ci biiru ndeyam maanaam ci fëyu ndeyam léegi deret jooju nag bu bu nekkee ci fëy boobu bu bu ko bu bu ko ndoxam góor gi laalee maanaam bu ko ndoxam góor gi laalee deret jooju day mujj nekk lu xaw a dëgër maanaam day nekk lum gannaaw ga nag deret ji dafay soppe ko ñu tuddee jëniin ko ko defee nak mo non lay doomu aadama so manam dañu bëggoon wax rek dañoo waxoon rek né ci pass pass yu ñëkke ak xalaat yu njëkk yi dañoo jàppoon ne doomu aadama mi ngi soso ci deret lool lay wax juñju benen bi ñoom ñi né xalé bi nga xamné bu juddoo ndax goor lay nekk wala jigen dépendre ci bay gi waye ci yaaji la dépendre manam li tax xalé bi nekk goor wala li tax mu nekk jigen lolé ci yaaji la aju léegi nag loolu ak yeneen yeneen yoo xam ne am na ci lu aju ci wàllu loolu waaye loolu dañ ko fay tënk rek lu jiit nag junni at ak ñeenti téeméer booba la alquran wàcc waaye ñu fàttali fii ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam borom bi tabaraka wa taala moo leeral ci alquran ne annabiyul ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil te sootul araf ay cent cinquante sept waaye borom bi leeral ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ummi won moy ko xamne jàngul won manam ku jàngul ku xamut am jangul waye borom bi yëmul fofu tek na nako euh wa ma kuntu tadlu min khabli min kitabin wala taqatuhu bi yaminika idhan la lartaabal mutlun bal huwa ayatun bayna sudur suduri utul ilma wax ka ca sortu sara ay 49 naka yow day nek won sax ku xam lire mënoo woon a liir waaye nag mënoo woon mun a woon a liir mun a bind xam kon lan kooku day tegtal ne kon analphabète la maanaam koo xam ne xamul jàng munul liir munul bind lu yàlla lu tax yàlla def loolu yàlla moo bëgg xam lan la bëgg a foofu pour wane miracle alquran waaye gannaaw loolu te itam ci jamono bi alquran wàcc boobee xam-xam développé wul nii ni science développé boobu science développé wul nii gis ngeen erreur yi ma leen wax léegi ci gannaaw yi nga xam ne moo daan dal borom xam yi waaye itam booba matériel yi nga xam ne moom lay moom lay jëmmandikoo ci gëstu pour xam masalan lu mel ni rajo radiographie booba amul waaye lu mel ni analyse yi ñuy def booba amul waaye échographie itam booba amul kon nag yooyu yëpp yooyu yëpp daje woon na fi mooy ki ñu wàccee ci alxuraan ci moom wax nañ ne jàngul woon waaye nag même bu fekkoon ne sax jamono dafa jàngoon boobu xam-xam développé wul waaye booba mooy yi nga xam ne tey moo am pour ñu mën a xam jigéen di nekk ci biir bi booba tim loolu kenn xamu ko su ko defee nag ci jamono yi alxuraan di wàcc nag la borom bi tabaraka wa wax ne wa alamu bikum is ansaakum min al ardi wa is antuma ajinatun fi butuni ummahatikum yàlla nee na maa leen gën a xam man mi leen sos ci seen biir yi ndey ngeen nekk maanaam embryon léegi nag alxuraan daal ñëw nag di confirmer ni mu dëggoo ak nu mu garanté borom bi tabaaraku taala ne waman asdaqu min allahi hadisan neena ku gëna dëgg yàlla wax amul waman asdaqu min allahi xiilan léegi nag alquran daal di ñëw nag annoncé sosub doomu aadama borom bi tabaaraku taala wax ci suratul insaan ay deux ne inna khalaqna al insana min nutfatin amsaajin nabtali yàlla neen doomu aadama dañ ko bind mu jóge ci lu ñu tuddee nutfa nut fa boo xam ne am saajin maanaam toq boo xam ne dafa bu njaxas la loolu mooy lan mooy xam ngeen ne euh, pour doom sosu mooy il faut mu am unité rapport sexuel entre maanaam góor jaxasoog jigéen góor su jaxasoog jigéen am na luy jóge ci góor kooku la ñuy tuddee sperme moom ay walax njaanee ci ne tase nen bi nga xam ne mooy jigéen mooy jóge ci jigéen ci nga xam ne moom la ñu tuddee la follicule jeunesse ñi koy wax ay juróoy baat nen boobu bu demee ba mat nekk ci étape boo xam ne mooy étape bi ñu tuddee la fécondation mooy période bi nga xam ne tey nen bi su si agsee day àgg ci maturité léegi nag nen boobu nag ci jamono boobu bu fekkee ne ndaw si am na am na kum séq ndox moomu di jógee ci góor gi te nekk Esperma, dafa am ay walax njaan walax njaan yoyu dañuy fekk neen ubbe ko ni su ko bu neen ubbe ko rek walax njaan day dal tabbi ben walax njaan bu tabbi moy ben nit su ñaar tabbi moy ñaar mom dal lu tabbi rek walax njaan yi walax njaan yu tabbi rek lool lay ndaw ci ëmb nombre doom dégg nag way diwlu yalla wax inna insana min nutfatin amsaajin min nutfatin amsaajin inna xalaqna al insana min nutfatin amsajin xam nga def na ndox mun jaxas ce qui veut dire que kon mooy ndox moo xam ne bokkuñ benn nature bokkuñ benn melo kon da ngay gis ne ndox mi jógee ci góor gi ak nen bi buñ jaxasoo maanaam maanaam spermatozoïde bi bu tàbbee ci biir nen bi loolu mooy nut fa kon gis nga ne li jógee ci góor gi ak li jógee ci boobu jigéen gi bokkul moo tax alxuraan am saaj muy nut fa boo xam ne buñ jaxas la léegi nag léegi nag alxuraan kon leeral na naka lay soso te xam nga ñee dañoo waxoon ne day day sosoo ci maanaam ci ci deret léegi alxuraan wax na naka lay sosoo léegi alxuraan dellusiwaat na confirmé ne leeral nee na maanaam xale bi xale bi nga xam ne mooy sosu xale bi ndax góor lay nekk wala jigéen xam nga fee ñee dañoo waxoon ne ci jigéen la dépendre alxuraan ñëw na ne xale bi bi ndax day judd nekk góor wala day judd nekk jigéen dépendre ci yaay ji waaye ci bàyyi la dépendre loolu xam-xam bi ko confirmé mooy li ñu tuddee ilmul wiraasa mooy la génétique xam bi ñu tuddee la génétique nga xam ne en 1933 la la la la la xam-xam boobu la xam-xam boobu feeñ en 1933 la xam-xam boobu feeñ léegi nag léegi léegi léegi nag alquran ne euh, alam yakun nutfatan ألم يكن نطفة من مني يبنى ثم كان علقة فخلق فطوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الله أكبر سورة القيامة آية 37 38 39 borom tabaraka wa taala ne doomu aadama alam yakk nutfa gis nga nutfa bi ma la doon wax léegi moo doon njaxas loolu nga xam ne keroog bi bi bi bi bi bi bi supermatozoïde bi tàbbee ci ovule bi loolu ñu tuddee loolu mooy nutfa yàlla ne doomu aadama ndax lékkuleen nutfa mo xam ni maniin tukkee nag ci ndoxam maniyu ci yub naa suma kaana alaqatan fa xalaqa fasawee yàlla ne fa jala ma def minhu ay ci min manin bobu zawjaini ab couple bo xamna zakar wal unsa neena ci ndoxam maniyu ci la def li confirmer na xale bi buy judd góor lay don wala jigen neena lol ma nga def ci ndox mi ndoxam góor gi lol nak génétique moko leral parce que buñu ñu ci génétique ci xam-xam buñu tuddé tuddee génétique dafa wax ne góor maanaam doomu aadama ci boppam mi ngi composé quarante six chromosomes moom li ñuy boole bu nekk doomu aadama léegi bay ji bay ji day joxe vingt trois chromosomes yaa ji joxe vingt trois chromosomes muy quarante six chromosomes bu ñu ko boolee moom mooy mooy xale waaye léeg-léeg ci quarante six chromosomes yooyu bay ji day joxe vingt deux chromosomes somatiques teg ci benn chromosome boo xam ne dafa boole ñaari élément x ak y yaay ji tam joxe vingt deux chromosomes teg ci ñaari chromosomes yoo xam ne maanaam maanaam benn muy benn euh, chromosome sexuel te mooy xx léegi nag xale bi pour mu nekk góor wala jigéen mooy yaay ji moom x rek la war a joxe maanaam xale bi li tax mu war a nekk góor wala jigéen yaay ji moom ñaari x la yor benn x lay sànni benn x vingt deux chromosomes plus benn x la mën a sànni bàyyi ji nag benn vingt-deux chromosomes buy sànni imam mu sànni x wala mu sànni y léegi nag su ko defee nag su boobaa nag léegi bàyyi ji bu fekkee dafa sànni x yaay ji moom x lay sànni ñaari x yooyu buñ dajee xale bi day nekk jigéen su bàyyi ji sànni y yaay ji moom x lay sànni x ak nag buñ dajee xale bi bu juddoo day nekk góor loolu xam-xam bi ñu tuddi la génétique xam ne en 1933 la sosu moo confirmé loolu kon da gis ne alxuraan li wax ne fa jaala minhu yàlla ne ma def minu ci maanaam man yu zawjayni ñaari couple kenn ki góor la kenn ki jigéen kon yàlla wone ne ndeke lii tax xale bi nekk góor wala mu nekk jigéen dépendrul ci yaay ji waaye ci bay ji la dépendre loolu loolu di ñaareel di ñaareeli leeral loolu di ñaareel leeral boo xam ne alquran leeral na ko léegi nag borom bi tabaraka wa taala nag gannaaw nag bi xale bi soso baa jël borom bi tabaraka wa taala daane nag xalaqal insaana min alaq te sóortu la alaq léegi nag xale bi bu soxee pare dafa am lu ñuy tuddee la nidation maanaam dafa am dafa mel ni xale bi dafa am lu ñu koy wékk ci biir biiru ndeyam bi wékku boobu mu wékku nag boo fa wékkoo ba àggeel nag yàlla waxaat ca sóoratul maanaam ci sóoratul mursalaat na alam naxluqukum min maa in mahin fa jaalnaahu fi qararin makinin ila qadarin maalum ca sóoratul mursalaat aaye 20 21 yàlla ne alam naxluqkum min maa in mahin ndax doomu aadama bind ko ci rek ci ndox mu doyee waaye nag fa jaal naahu ñu def loolu nag muy nut fa boobu ma la waxoon fii xaraarin makiin ci bat boo xam ne bu garanti bu dal ila qadrin maalumin ba dogal boo xam ne bu ñu xam lay doon léegi nag yàlla wane na leen foofu nag ndey ji ci boppam ci biir ci xale bi ci biiru ndeyam bi ko yaayam ëmbee bàggeel bu yaayam doon sëpp jëlañu tim di daw ak di def lu nekk xale bi moom du yëg li xew lu tax xale bi du yëg li xew nag loolu alquran dana ko leeral yàlla nag daal di ñëw nag neen lu waral loolu mooy borom bi tabaraka wa taala ñëw daal di leeral na alquran daal di leeral ne xale boobu mooy yàlla nee na yaxluqukum fi butooni ummahatikum xalqan min baadi xalqin fi zulumaati salaatin ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون سورة زمر آية 7 برام بتبارك وتعالى نه دي ندخ ألم يخلقكم في بطول برام بتبارك وتعالى يخلقكم في بطول أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثين ذلكم لا ربكم borom bi tabaaraka wa taala nee doomu aadama dañ koo bind ci ñetti lëndëm maanaam bi mu nekkee ci biiru ndeyam mi ngi ci ñetti lëndëm yoo xam ne ñoo ko ëmb léegi ñetti lëndëm yooyu nag alquran confirmé na ko wax na leeral na ko na ñetti lëndëm yi mooy lan mooy te loolu science moderne ak sina ci leeral na dafa am lu ñu tuddee kiis amniose maanaam am amniose mooy mooy benn benn benn kiis boo xam ne dafa ëmb xale bi boo xam ne ci biir maanaam liquide dafay nekk boo xam ne xale bi maanaam ci lay féey mu daal ne kiis boobu nag dafa am beneen kiis bu mu ëmb boo xam ne moom la ñu tuddee alcurion maanaam curion boobu tamit mu am beneen kiis bu ko ëmb boo xam ne nag moo moo moo leen ëmb fare ci biti moom la ñu tuddee alantos léegi nag ñetti kiis yooyu boo leen boolee bii dafa ëmb xale bi bii ñëw ëmb xale bi bii ñëwaat ëmb xale bi kon dangay gis ne moom lay alxuraan tuddee ñetti ñetti lëndëm

Euh, maanaam euh, microscope boobu lañ koy soog di tuddee nga xam ne boobu boobu alxuraan wàcc na ba teg maanaam junni at ak nangam ñu soog di tuddee microscope. te microscope boobu Marcel Johnson danañ ko tuddee ci kanam Marcel Johnson c'est un américain boo xam dafay spécialise wu ci doomu aadama naka lay sosoo ak opération. léegi nag Marcel Johnson boobu nag dafa wax ne. premier microscope bi njëkk a créé ci àddina bi nee na bi mu ko gisee gis na ne microscope boobu maanaam boo ko boo ko li mu lay won boo ko multiplier dix fois du tax image bi leer neen du tax image bi leer maanaam boo doon agrandir loolu dix fois du tax image bi mu lay jox mu leer léegi nag boobu lañ tuddee microscope ovule bii ñuy wax mooy nen bi jógee ci ci jigéen ci année maanaam ci dix-huitième siècle maanaam gannaaw bi alxuraan wàccee ba am junni at ak ñaar téeméer yu teg dara lay lañ koy soog di lañ koy soog di xam spermatozoïde bii tamit nga xam ne mooy mooy mooy mooy walax njaan wi génnee ci ndoxam góor gi maanaam bi bi maanaam ci seizième siècle mille six cent soixante dix lañ ko turee boobu alxuraan wàcc na ba am téem ba am junni at ak téeméer xoolal lu njëkk xamuñu woon spermatozoïde te alxuraan xam nga du ko tudd man yi boobu muy wax noonu ci biir la spermatozoïde nekk waaye kon gis nga ne alxuraan kon yii bi alxuraan di wàcc fekk na ay lu ay at lii so lii borom xam-xam yi ak seguñ ci kon nag gis nga léegi nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa di ñëw leeral ci ay ahadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw leeral ci ay hadis ne ñaari hadis yoo xam moom da koy indi di saxal loolu nga xam ne moom la alquran wax yonent bi gën koo leeral nag waaye yonent bi dataa yokk nag loo xam ne ne inna ahadukum yajmoo xalqoo fi batni ummi arbaina yowman nee na nutfa suma yakuna alaqa misle zalika suma yakuna mutfa misle zalika suma yabasu llahu ilayhi malakan wa yumur bi arbaa kalimatin wa yuqaalu lahu uktub amaluhu wa razaqahu wa ajluhu wa saqiyun aw saidun suma yanfuxu fiihi ruuxu yonente bi alei salaam nee nit ku nekk suñ borom ci biiru ndeyam di la koy yàlla dajale ay cëram nee na bu commencé sosu ba am ñeen fukki guddi wala ñeen fukki bés ca nag commencé nag li tax muy nekk nit dëgg fa wata amee ñeen fukki guddi lay tàmbali moo xaat ci beneen hadis boo xam ne daf ne yaar mu nekk ñeen fukki fan wala wala ñeent fukki fan ak ñaar bu ci àggee yonent bi moo wax ci hadis boobu muy ñaari hadis yoo xam ne ñaari hadis yoo xam ne ñaari borom xam-xam yi maanaam science moderne ñëw na confirmer loolu maanaam la médecine moderne ñëw na confirmer ne lu yonent bi wax lu wér la gannaaw bi nga xamee ne am nañ lu ñu tuddee échographie ak am li nga xam ne mooy microscope ak analyse yi nga xam ne microscope yi ñu mujj am sax moo gën a efficace ak rajo yi yëpp biñ ko amee ci lañ soog di xam ne effectivement doomu aadama ndeke bu nekkee ci buy commencé sosu bu demee ba fan ci biiru ndem wala ñeen fukki fan ak ñaar ci lay nag ci la yàlla wax ci la yónente bi waxee noonu suñ borom ci lay yónni malayka ma nag mu daal di ñëw nag leeral ne waa jooju euh, ay jëfam ak wërsëgam ak ñaata at lay dund ak ndax kuy texe la wala ndax kuy kuy texe di la nee na foofu nag lay malayka ñu ëffee ci moom roo xam nga bu roogu duggee rek léegi nekk na nit léegi nag foofu nag lay commencé nag léegi euh, nekk ni commencé naa nekk nit nag léegi nag li def mooy cër yi nag di di màgg léegi nag yonente bi alayhi salaam bi mu waxee léegi nag borom xam-xam yu bëri yoo xam ne moom laa lay tuddal fii waaye dama leen dama ciy lim ñeen na rek waxu yonente bi alayhi salaam ak alxuraan li mu wax léegi da leen a jommal gannaaw ga nag ay borom xam-xam yoo xam ne dañ leen di invité yeneen gox yoo xam ne alamul islam yi maanaam borom xam-xam yi nga xam ne ñooy jàngat alquran ak addis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak di ko dëppaleeg maanaam science moderne dañuy def ay ay ay jataay ay ay ay congrès yoo xam ne dañ ciy ay borom xam yoo xam ne yoo xam ne dañu ci wàllu science ci domaine boobu léegi nag ci Riyad nag ñu doon def. daje bo xam ne alquran ak sunna ak nim daje manam xam-xam la science moderne ay borom xam-xam yu bari nak ñew participer ci ay borom xam-xam yu bari ñew participer bokku ni ci borom xam-xam yoyu muy ku ñuy wax le professeur Gilles Simpson mom gynécologue la manam gynécologue moy ko xam dafa spécialisé ci appareil bi nga xam ne maanaam ci kanamu jigen tal. ci appareil génital waye ak ak professeur gynécologue la de accouchement ak ci walu naka lay jigéen di loolu mooy spécialisé mom ni mi ngi nek ci à l'université du nord western Chicago ci Amérique fa la nek biñ ci invité ci jotaay bu ñu mel mu xol ko mom bimu mu jàngatee ak li alcorane wax ci doomu adama da caa yému bané ne euh, j'affirme que la révélation peut diriger la marche du mouvement scientifique nee na daal li a jàngat fii mooy eh, wax ci boppam mën na ëmmat xam-xamu science di ko wan yoon wi ci gàttal loolu leen ndax ndax wax yu ci yàlla la jógee te yàlla dafa wax ci alxuraan wa fawqa kulli zi ilmin alim yàlla képp koy am yàlla la gën yàlla la ëpp xam-xam loolu yàlla sax kenn du ko ndax àllamal insaanu maalam yàlla mooy xamal doomu aadama lu mu xamutoon. arrahmaanu allamal quraan xalaqal insaanu allamal bayaan moo bind doomu aadama moo ko xamal lépp doomu aadama bu ko yàlla xamul ta xam dara léegi nag ci ci jeexalam moom ci gàttal mu ne daal le Coran est bel et bien la parole de Dieu mu ne daal amul benn werante ni ci lu wér ci lu wóor alquran ji waxu yàlla la kooku c'est un américain ki ci topp di Marcel Johnson Marcel Johnson mooy chef de service du chirurgie et directeur à l'institut Daniel à l'université de Thomas Jefferson à Philadelphie chez Amérique professeur Marcel Johnson moi, chef de chef de service bien nga bien directeur université bi nga Philadelphia Amérique lay liggéeyee moom moom Marcel Johnson moomu ku xam ci wàllu embryologie la maanaam doomu aadama naka lay sosoo ba ni muy nekk loolu lépp moom nag biñ ko wooyee ci Riyad mu ñëw ci Riyad fekkee jataay bu ñu mel ci jataay yi mu la wax bi mu déggee rek ñuy wax ne euh, alxuraan dafa wax ne doomu aadama bu ñu ko bindee maanaam bu sosoo dafa am lu ñu dafay def li ñu tuddee tatawo maanaam day yokk da yokk xam nga borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne eh, te dañ ci ñëw léegi gannaaw bi doomu aadama sosoo ba àggeel daf ne waxat at atwaaran maanaam bind nañ leen ngeen nekk ay jóge ci état bi dem ci étape bi dem ci étape bi léegi étape yooyu daan ñëw ci kanam mais moom bi mu ko déggee daa jóg taxaw mel ku jaaxle ne waaw yéen lan ngeen di lan ngeen wax nii ñu ne ko dañuy wax ne alxuraan dafa wax ne na doomu aadama bu sosoo maanaam dafay yokk dafay def tatawur maanaam dafa am dafay def li ñu tuddee évolution day yokk jóge ci état bi ñëw ci état bi ñëw ci état bi ñëw ci état bi ba mu nekk nit mu yéemal mu yéemul lool léegi nag gannaaw gi ñu ne ko waaw toogal rek mu toog mu ne daal li ma mën a xam mooy jamono yii ngeen di wax wax ji na seen téere bi moo ko wax jamono yii man man microscope bi ma njëkk gis nga xam ne moom lañ sos moo njëkk am ci àddina bi nga xam ne moom lañ njëkk inventé nee na microscope boobu day nee biñ koy inventé biñ koy inventé mu ne microscope boobu bañ koy inventé day bañ ko inventé boo ko xoolee mënta rëyal dara loo xam ne mën na dix fois même bu ko rëyalee dix fois sax du tax mu leer mu ne nag daal li ma li mën a li ma mën a xam ci sama jeexal ci gàttal li dama ko tënk rek dama ne daal li mooy il s'agit bien de révélation lii daal wértu wóor la alxuraan jii ngeen wax mooy wax la joo xam ne mi ngi jóge ci yàlla ñëw ci yonente bi alayhi salaatu salaam daan nag daan nag awmu benn difficulté pour nangu ci sama xel mu wér wóor na daal ñun daal ñoo ngi jàkkaarloog loo xam ne inspiration divine maanaam wax la joo xam ne dafa jógee ci yàlla ñëw ci yonent bi alxuraan ji ñu jàkkaarloo daal wértu woo mooy ci yàlla la jógee kooku Marcel Johnson loolu la wax ba tey boroom xam-xam yi euh, ku ñu tuddee le professeur Van bernardso Shaw moom itam c'est un Canadien maanaam mooy chef de service de chirurgie à la faculté de médecine de melhoton au Canada maanaam moom ci boppam chef de service la nekk maanaam kuy opérer ci faculté de médecine bi nekk ci dëkk bii ma lay wax Manhattan ci Canada moom biñ ko gaarale yii yëpp daa yéemu ki yàlla mu ne daal li ma mën a xam ba xam ko mooy man addis yi ma jàngat ak alxuraan yi ma gis dama cee gis alxuraan euh, nee na li mu seetlu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo dañoo wax ne mësta jàng te jamono boobu alxuraan di wàcc ak léegi mën na junni ak ñeenti téeméer mu ne nag waaye li ma li ma yéem mooy ni mel melalee ni muy leeralee maanaam euh, fotis bi maanaam doomu aadama bi bi commencé sosu bu commencé sosu ba baa muy nekk nit ko leeralee nga xam ne dafa dëppoog science leeral la goo xam ne daal loolu daal yéeme ne ko mu ne nag euh, dëgg-dëgg nag maanaam munu maa munu munu wax ne man de mun a laa astatee an oomin benn haza mujarradu sutfa munumaa mun naa munu munumaa gëm ni lii daal maanaam dafa am rek par accident maanaam dafa am rek par hasard waaye daal li may li may jeexalee mun a daal li may jeexalee damay jeexale rek la nga xam ne kit muur jeexale woon na ko léegi lool li kit muur jeexale woon na danañ ci ñëw ca kanam maanaam nangu na alxuraan ci ci yàlla la jógee beneen professeur boo xam ne nag moom lañ tudde euh, Grange moom nekk Washington moom tim jàngat na comme ni borom xam-xam yi daal li mu xam mooy xam nañ ne façon maanaam doomu aadama naka lay sosoo mu xam nañ ñeenti étape étape bu njëkk bi mooy yàlla ni mu waxee ne aadama aadama sosu na amul ndey amul baay mu ne awaa sosu na te amul amul ndey maanaam mi ngi jóge ci aadama kon da naan amul ndey waaye yonti yàlla Aysa sosu jóge ci Mariama te amul baay mu ne nag beneen ñeenteel bi nag mooy nag sosu goo xam ne dafay nit ki day boole ndey ak baay léegi nag xam nga borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne ci alquran ne inna matala Aysa inda allahi yàlla nee na misaalum Aysa mii day mi ngi mel rek aadama mi nga xam dañ koo bind mu jóge ci mu jóge ci suuf aadama moo gën a yéeme maanaam bu ngeen yéeme ci yonti yàlla Aysa mii nga xam ne amul baay Euh, li ko nee na nee na aadama moo gën a yéeme ndax aadama amul day amul bàyyi léegi nag professeur bi nag ne waxuma dara waaye xam-xam àgg na foo xam ne découvrir na yeneen bàyyi ma yoo xam ne ndeke danañ sos sax te bu góor bi du def dara masalan mu joxe mu daal di joxe misaal mu daal di joxe misaal maanaam yemb yemb ni muy sosoo xam nga yemb euh, surtout yemb dafa ne yemb bu jigéen bi euh, maanaam ñoom seen jëmmi bopp da gis ne ci nen nen bi nen nen bi ñu waxoon léegi ci jigéen gi ca la ñuy sosoo am ndoxam góoru mu yemb bu góor du leen laal noonu noonu lu ko xam-xam ak yeneen mu leeral yeneen bàyyi yoo xam ne mën nañoo sosu maanaam te ci jigéen gi rek lay jógee tan te bàyyi ju du intervenir kon xam nga mi ngi leeral ne kon fa bëgg wax ne eh, Mariama war naa mën a am doom comme te te te sa bay bàyyi du intervenir kom yàlla dogal na am bàyyi ma woo xam ne wala rab woo xam ne muy yemb loola ci boppam loolu moo nekk ci moom kon loolu yàlla mi def loolu war naa mën a def lee ci Mariam loolu la bëgg a wax rek maanaam yàlla ci kàttanam loolu lu lu mën la. léegi nag ñu ñëw ci professeur Kitmour professeur moom jëmm joo xam ne professeur Kitmour professeur Kitmour la joo xam ne mooy spécialiste la ci en chirurgie et en embryologie moom ci université bi ñuy wax Toronto ca Canada maanaam dafa spécialiste ci maanaam ci opération ak ci doomu aadama naka lay sosoo ba ni muy nekkee nit léegi nag euh, moom ci boppam mu bind benn téere téere boo xam ne mi ngi ko tuddee le développement humain maanaam développement humain mooy doomu aadama naka lay yokkoo léegi nag moom dañ koy invité moom ti mu ñëwoon Riyad fekkee jotaay boo xam dañ cey jàngat alquran ak sunna ak la science moderne léegi bi ñëw ci jotaay bobu nak ñi garal ko ay bi may bëgg jang borom tabaraka wa taala nga xamni fi dafa waxon na doomu adam dañ ko bind mu jógee ci étape bi ñëw ci étape bi waxat khalaqukum atwar légui nak yalla neen dama leen bind ngeen jógee ci étape bi ñëw ci étape bi ñëw ci étape bi ñëw ci étape bi légui nak loolu alxuraan diko ko bo demé ci sourate mu'minuna yi 12 13 14 borom bi taala ne walaqad xalaqna al insaana min sulaalatin min tiin yàlla neen doomu aadama ñu ngi ko jëlee ñu ngi ko jëlee mu jógee ci li tiin jógee ci ban mooy aadama waaye nag su gannaaw ba nag mu ne su ma jaal naaxu ñu def ko moom loolu nut fatan mu di toq nut fa boobu waxoon la ko ca gannaaw mooy bu supermatozoïde bi jógee ci góor gi ñëwee taseeg nenu jigéen ba dugg ci biir ba nen bi téye ko loolu mooy nut fa yàlla na leen nut fa boobu nag xam nga moom la alxuraan wax ne fa jaal naaw fi xaraarin makin ñu def ko ci barab bu daal gannaaw gu mën a waxat xalaxakum atwaaran ñi ñi def ko nag mooy ay étape ay étape mooy ñu tuddee la après mu commencé nag li ñu tuddee la divi la la la division mitose mooy nag transformation yooyu mu yooyu muy def mu ngi caan la division minose léegi nag dégg nga la mitose la division mitose léegi nag alxuraan ne su ma jaal naa ñu def ko moom toq boobu nëpp fa boobu fi xaraarin makin ci barab bu daal waaye nag gannaaw bi defee suma ma jaal naaw su ma xalaat naaw ñu def suma ma xalaat naaw ñu bind not fa boobu not fa àllaxatan ñu def ko mu di lumb fa xalaat naa ñu bind nag al àllaxata lumb woowu mutuxa def ko mutuxa mutuxa dañuy wax ne mooy niñ ko ma euh, moom tim maanaam mooy aw yàpp yàpp aw yàpp nga xam ne dañuy wax na euh, Maurice kay bi muy koy décrire ci livre bi ci la la le Saint Coran mais na na na ci ci livre bi mu tudd le Coran la Bible et la science moderne dafa wax ne day mel ni singom boo yëy yàbbi ko ni muy mel borom bi ne fa xalax nal mudxata yàpp wu fa xalax naawu ñu def ko ay isaaman ñi transformé ko def ko ay yax gannaaw go fa kasaw nal isaama yax yooyu ñu ñu wodd laxman aw yàpp su ma ansa naaw ñu sos ko nag xalxan aaxar ñi def ko mu di leneen borom bi tabaaraka wa taala teg na fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin léegi nag gis nga état bi yi borom bi xam nga lis la alxuraan dafay melal maanaam xale bi bi mu commencé sos fétis bi ni muy développé ci biiru ndey léegi alxuraan moom da ngay ba pare wax ni mu mel léegi nag le professeur Kidmour mi ngi toog ci jotaay dañu jox ko livre boo xam ne Yusuf Ali boo xam ne dañ ko traduire en anglais muy mu dégg lii alxuraan bi wax mais bi mu paree def na mais li may bëgg a laaj mooy ban professeur moo ko wax ji ne ko wax wax ab professeur mu ne non mais lii ku jàngut mënu ko xam ñu ne ko sax kii sax nag dafa jàngut sax nag mën loolu mënta nekk te itam ñu ne ko waa kii boobaak léegi nag bi wax ji bi muy wàcc ci moom boobaag léegi mën na junneer ak ñeenti téeméer professeur Kidmour ne waaw mais boobu sax science développé gul nii ñu ne ko waa ndax li wax wér na mu ne mais li mu wax wér nu wér mu ne ñun suñu académiciens yi yëpp suñu école académique yëpp développement fétus ci biiru ndeyam maanaam xale bi ni muy ni muy màggee ci biiru ndeyam nee na ñun amuluñ ko woon ñun dañ daan wax rek étape un étape deux trois quatre cinq ba ba mi pare mais li ma jaaxal seen bi bii ngeen wax ne Muhammad mi ngi ko wàccee jàngul moom da lay wax étape ba pare wax la ni mu mel xam nga wax na léegi ne nut fa gannaaw gu nut fa ma def ko mu di àllaxa gannaaw àllaxa ma def ko mu di mutxa gannaaw mutxa ma def ko mu di isaaman gannaaw ko isaaman ma def ma wodd ko aw ma wodd ko aw yàpp léegi ñu ne ko wax ndax li wér mu ne lii wees nu wér daal di nag daal di nag moom moom mu ne nag nañ ko may nag nga xam ne ay journaux journaux yu bëri ci Canada gannaaw bi ñu delloo ay journaux yu bëri fekk dafa ñaan jullit na leen may leen ma nag ma def ay conférence ci adduna bi. nga xam ne livre bii moom ci livre bii nga xam ne moom la bind doon ci wax doomu aadama naka lay développé ci biir livre ba ci biir livre boobu nag nga xam ne livre boobu traduire nañ ko ci huit langues ngir importance gi nga xam ne kit muur tey bu ñu doon wax ne am na ab yonente boo xam ne dañ ko dafa spécialisé ci doomu aadama naka lay sosoo ba nekk nit. danga naan mooy ab yonent la ci léegi nag mu ne nañ ko may nag ci Canada ak ci àddina bi mu def ay conférence bi mu ñëwee Canada nag ay journaux yu bari wër ko di bind ci li muy wax ci benn conférence bu mu doon def ba pare nag mu def ay ñett lu ban ñetti émission ci télévision yi pour leeral dëgg gi nga xam ne mooy alquran karim ak ni mu dëppoo maanaam concordance bi am entre maanaam nga xam ne boobu mi ngi doon def conférence ci concordance maanaam dëppoo gi alquran dëppoo maanaam la science moderne ak la médecine moderne ak yi waxuma dara mais l'évolution de fétis ci biiru ndeyam ni muy évoluer ni alxuraan dëppoo ak moom loolu ci la doon def conférence allahu akbar nga xam ne Maurice Bucaille ci téeréem bi mu tuddee le Coran la Bible et la science moderne def na lu ni mel bokk yi lii ab tënk rek la léegi nag gis nga borom xam-xam yi borom xam-xam yu bari am na benn professeur bu ñuy wax yande yan yande mooy mooy moom moo diriger recherche yi ñuy def ci l'embryon maanaam ci doomu aadama naka lay soso à l'université nationale des sciences et de technologie ca Taïwan moom bi muy jàngat doomu aadama maanaam doomu aadama bu soso naka lay yokkoo ba ba muy nekk nit ni ko alxuraan décrire léegi bi mu ko jàngatee nee bi ma jàngatee loolu ba pare nee na nag ci laa gëm na nag doomu aadama bii évolution bi am bii am na ko ko bind kooku kenn ku yàlla nee ci laa jaaree man gëm yàlla man daa de nag conclusion bi may def mooy la vie a été créée moom ci la jaar gëm yàlla waaye am na beneen borom xam-xam boo xam ne euh, professeur maanaam Jaysul Kalaria ci Jaamiyatu Newcastle ci ci ci ci Angleterre moom dafa jàngat maanaam cerveau doomu aadama maanaam Europe doomu aadama la doon jàngat nga xam ne ñeent fukki at nee na jàng na ko yuur doomu aadama di ci liggéey nee dafa gëmoon ne li Charles Darwin waxoon ne doomu aadama maanaam mi ngi mi ngi jóge ci golo nee na da koo gëmoon waaye gannaaw ga nag ci gëstoom yi nga xam ne dafa spécialisé ci li ñu tuddee ilmu tasriya mooy l'anatomie nga xamne dafa aju ci le cerveau doomu adama manam yurub doomu adama ci le spécialisé mom nee na bi mu ko jangate bagal la gis ne ne nee dal anal ann al maxluqat musammama bi tariqatin ra'i'a wa mu'aqqada jiddan ولم يعد منطقيا بالنسبة إلى أن أنصب هذا المستوى الرفيع من التحقيق إلى عملية عشوائية الله أكبر نضال بما جانغتي يورب دوم آدم ak li ci aju ci yéeme nee na nee na day gis naa mu ne mu am benn organisation boo xam ne boo xam ne bu complexe boo xam ne bu yëkkati ko boo xam ne daal neen daal dara destut loolu rek nee na yenootul maanaam ñuy xalaat ne daal liggéey bu ni mel daa xëy xëy rek sosu maanaam par hasard rek laa ne war par accident neen loolu mënta nekk waaye lii dafa am mu sammim ak mu xattit كوخ اك منتظم ولا منظم كوكو موي كي ديف لي كوكو موي سبحانه وتعالى متى يالا وخش القران الا يالو من خلق وهو لطيف القبير العيال من خلق ندخ من يالا مي بيند دوما ادم خاوم لي مي بيند وهو بكل خلق عليم يالا ني لي مي بيند ديب خمناك ندخ هو اعلم بكم اذ انتاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم kon nag yii ay borom xam-xam yu bari yoo xam ne maanaam ñoo def lii léegi nag bokk yi loolu mën naa ci indi ay borom xam-xam yu bari léegi nag li ñuy dem mooy euh, ci ñaareelu tomb bi mooy lañu waxoon ne léegi nag ñëw ci li ñu tuddee ñëw ci li ñu tuddee nag lu waral maanaam lu waral nag euh, doomu aadama muy idda xam ngeen ne idda ci sharia euh, dafa bëri ay façon bi ci njëkk bi mën nañoo wax ne mooy idday koo xam ne jigéen joo xam ne day gis mbërëg borom bi tabaaraka wa jigéen nee na mu googu wala mutallaqaatu yatarabas na bi anfusihunna salaasata quruu kooku day xaar ba gis béréb benn yoon bu idda wu gisaat deret benn yoon gisaat deret benn yoon iddaw mooy période bi nga xam ne jigéen gi da ngay tàggu jëkkëram yaar dañ koy fase wala jëkkëram gaañu mu war a toog période boo xam dafa war a toog ba set set boobu nag lislaam dafa wax ne bu dee bu dee ci kuñ fase te muy gis mbërëg mooy ne dafa war a xaar ñetti yoon day gis deret ñetti yoon gis deret xaar ba set gisaat deret xaar ba set gisaat deret xaar ba set ba mën ñetti yoon salaasatu xuroo bu dee xam ne dañ koo fase nga xam ne moom du gis ngir mageem wala du gis deretu mbërën mbërët ngir nim nekk gone kooku alxuraan daf ne kooku maanaam ñetti weer ñetti weer lay eddoo wala yais na min almahidi min nasaayikum inir tabtum fa iddataw na salaasatu asfarin kooku ñetti weer lay kii bu dee nag idd iddatal mutallaqa al aamila bu dee nag jigéen koo xam ne nag dañ ko fase masalan waaye fekk mi ngi ëmb kooku moom bu amee doom rek maanaam idda ji jeex na ulaatul ahmaali ajaluhunna an yaraana am loolu te soo talax ay cinq léegi nag léegi nag idda ki nga xam ne nag dafay maanaam day gis mbërëg dégg nga waaye nag maanaam maanaam maanaam mbërëg gi léeg day dog ci sabab boo xam ne buñ xam la wala sabab buñ xamul la bu fekkee sabab la boo xam ne feeñul moom dañ ne day day iddoo at lay iddoo bu dee nag ki nga xam ne nag jëkkër ji daa faatu waaye nag euh, mu ne mooy iddatul mutawafa anha zawjaha maanaam lil xorra arbata assurin waasal bu dee jigéen joo xam ne as gor la maanaam jëkkëram gaañu si jëkkër gaañu jigéen joo xam ne jëkkëram dafa gaañu maanaam iddoom ñaat la mooy day nekk arbata assurin waasal maanaam ñeenti weer ak fukki fan wala seen yatawfawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabasna bi anfusina arbata asurin wa asran ca suratul baqara ay 232 waaye nag ñu ne bu dee nag jaam bu jigéen nag moom ñaari weer ak maanaam juróomi guddi moom lay moom lay eddoo su nag ki nga xam ne nag jëkkër ji daa faatu waaye jëkkër ji bi mu faatoo nag maanaam wala jëkkër ji daa tukki nekk ci tukki kenn xamut ci moom dara koo xam ne jëkkër ji dafa fàddu maanaam koo xam ne sax jëkkër ji xamul ndax dafa faatu waaye dafa fàddu daal kenn xamul ci aw mawtin xamuñ ndax dafa mi ngi dund wala dafa dee su boobaa soxna si dañ koy wax ne na xaar ñeenti at lay xaar ba àggeel keroog bi nga xamee ne xamuñ ci jëkkër ji dara lay tàmbali toog ñeenti at bu toogee ñeenti at ba àggeel nag ci lay te xamuñ ci jëkkër ji dara nag mu soog di dag daal di iddawu iddawu jigéen joo xam ne jëkkër ji daa faatu mooy ñeenti weer ak fukki fan léegi lu tax lislaam di def lii mooy am lu am solo mooy xam ngeen ne idda xam nga dafa am benn borom xam-xam boo xam ne Robert Ghelem lañ koy wax ci à l'université Einstein dafa tuub dugg ci lislaam te li ko dugal ci lislaam leen rek dafa spécialiste yu ci wàllu mbërëgu jigéen ak deretu jigéen léegi nag moom ci euh, euh, xam-xam bi ñu tuddee ilmul ajina mooy mooy l'embryologie mooy ñuy doom di sosoo ba baa muy nekk nit moom dafa dafa tàbbi ci lislaam te li waral mu tàbbi ci lislaam nee na li ko dugal ci lislaam mooy mooy mooy idday jigéen ji nga xam ne dafa nekk day am ñetti weer mu ne nag léegi lim seetlu mooy gannaaw ay gëstoom nee na nee nee na nee nee na góor dafa am lu ñu tuddee basamatul ma irrajul nee na ji góor ci boppam ndox mi dafa am lu ñu tuddee empreinte li nga xamee ne sa empreinte sa empreinte yi kenn bokkule ko kenn même ñaari seex yoo xam ne ñaari seex yoo xam ne ñoo bokk nday ñoo bokk benn biir bu ñu jëlee le vrai jumeau sax naralowuñ noonee tim la ndox ndoxum góor gu nekk noonu la amee ay identification yoo xam ne la amee empreinte yoo xam ne bokk ko kenn la ay kii yoo xam ne bokk ko kenn léegi nag mu ne nag mu ne mu ne mu ne mu mu ne mu ne maanaam ndoxum man yu góor dafa am lu ñuy tuddee maanaam dafa am juróom benn fukk ak ñaar ay puritina puritina la wax mu ne nag loolu dafa wuuteeg géneen góor génn góor bokkalewu ko moroom mu ne jigéen tim maanaam mu ne jigéen tim dafa am lu ñuy tuddee combiota maanaam yaxtasinu dafay ëmb sufrata man yuaasiruha min rijal maanaam dafay ëmb ndox moomu nga xam ne mooy jóge ci góor te protéines yooyu protéines yooyu nekk di maanaam juróom-benn fukk protéine ak maanaam ak ñaar nee na su fekkee ne jigéen dafa dafa dafa dafa dafa maanaam dafa dafa dafa ak beneen góor gannaaw baada salaati mu baasara gannaaw bi ñu ko fasee rek te iddiwul nee su boobaa su boobaa nee na su boobaa dafay mel rek maanaam ka annama daxala fayruz li haazil computer maanaam su fekkee ndaw si dañ koo fase ci saasi ba jëkkëram dee ci saasi te iddiwul rek mu daal di jëlaat benn góor ak yir ko góor googu buy seey moom day mel rek dafa am benn benn benn microbe microscope wala benn bactérie boo xam ne dafa tabbi ci pays ndaw si maanaam ci computer boobu léegi su boobaa nag fa yusi boo day sabab ci loolu nag alxalal wal amradul xabisa ak ay feebar yoo xam ne yu dangereux la mu ne nag waaye nag wa sabita ilmiyan mu ne nag xam-xam confirmé ne ne jigéen bu commencé iddo nee na bu commencé iddo awulu aydin baada talaax nee na nee na nee mbërëg bi nga xamne ne gannaaw bi ko fassé ba paré néna néna su na su fekkee commencé naa iddawu premier mbeureug mi ñëk gis manam premier deret gi ñëk gis xam nga dafa waxono salatu salaasatu ci ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti weer wala ñetti manam deret ngay gis sok di set nee légui léegi nga am benen dëkkër mu nak nag gi ñëk njëkk premier manam premier premier mbeureug gi néna loolu mënu doon wax naan moy 62 yo xamne ay ay ay ay ay nitron lañ maanaam soixante deux yoo xam ne ay protéine lañ nee na premier mbërëg bi rek maanaam trente deux pour cent té bu doon téeméer nga ne maanaam ñaar fukk maanaam fanweer ak ñaar yi génn na ci ba set fanweer ak ñaar génn gum fanweer ak ñaar ba baa ngay ak juróom maanaam trente deux pour cent ila trente cinq pour cent nee na wal ay data saani nee na mbërëgam ñaareel ma tasilu day dañ maanaam soixante sept pour cent ci protéines yooyu il soixante douze pour cent maanaam soixante sept pour cent ba jëm soixante douze pour cent day dañ ci mooy muy loolu nga xam ne mu ngi ci jëkkëram ju njëkk ji mu ne wal xaydatu saalisa ne ñeneen ñetteelu mbërëg bi nag maanaam quatre vingt dix neuf virgule neuf pour cent ca jëkkër jeemu amoon wala keemu tàggu loola da day dañ ci moom ba set maanaam day mel ni tey jëkkër jooju amul lenn lu mu bàyyi ci ndaw si maanaam ci gàttal mooy lan mooy góor dafa am lu ñu tuddee empreinte dafa am ay éléments yoo xam ne mi ci yaram mi ngi ci ndoxam mën yu moom nga xam ne jabar ji muy fase wala jabar ji mu dee wàcc ndaw soosu ci jëmmi boppam ci période bi nga xam ne dafay iddoo bu bu bu njëkk bu commencé iddoo bu njëkkee gis régal maanaam 32 pour cent ba 35 pour cent ci loolee nga xam ne moo nekkoon ci jëkkër ci te des ci moom loola dañ na nee na bu ca tegaatee beneen deuxième idda bi maanaam setaat nag maanaam lu mat soixante sept pour cent ba soixante douze pour cent maanaam soixante euh, soixante pour cent ba soixante douze pour cent day day dañ ci moom nee na bu ñetteelu mbërëb bi nag quatre vingt dix neuf virgule neuf pour cent day day maanaam nga xam ne jëkkër jooju la desoon ci moom tam bàyyi ci ndaw si nga xam ne quatre vingt dix neuf pour cent virgule neuf maanaam cent pour cent yi daal maanaam daj na nga xam ne léegi ndaw si day mel ni set na ci jëkkër jooju set bu wër bu wër bu mat sëkk mooy kon da nga gis ne idda dafa am solo lool dafa am solo lool kon mel na kon jëkkër jooju léegi ndaw si set na ci moom set gu wér nga xam ne boo amee beneen jëkkër ba jaxasoog moom dara ca jëkkër ju njëkk jële laal lenn ci liy sosu allahu akbar kon yaakaar naa ne <laughs> loolu lu leer la léegi nag ñi jeexalee ci nag ci lu waral lu waral nag euh, lislaam ba tey ne jigéen su gisee mbërëg maanaam bu bu jëkkëram jaxasoog moom nga xam ne wala ma saree dañuy wax ne jigéen su gisee mbërëg jëkkëram di ko dalee ci oom oom bi oomu ndaw si ba ci jumbax bi yëpp dañ koy tere mu jege ko moo tax yàlla wax ne euh, na yërënde wa yasaluunaka anil maxiidi danañ la laaj lan mooy mbërëg xul waxal huwa moom ada lor la day lor taataziloo na ngeen sori annisaa jigéen ñi fil maxiidi buñ gisee mbërëg bu leen leen jege yàlla na wala taqaraboohunna bu leen leen jege xataa yat xor na bañ laab lu tax alquran xataa yat xor na bañ laab li xam nañ ne jigéen dafa am li ñu tuddee aadatu sahriya mooy li ñu tuddee la follicule jeunesse jigéen yàlla dafa dogal moom weer wu nekk dafay gis li ñu tuddee maanaam nen boobu nen boobu day sosu di màgg nen boobu nag bu sosoo ba màgg dafa am étape boo xam ne bu fa la la ovulation mooy amale sul nga xam ne foofu bu àggee nen bi day day day mat sëkk nen boobu bu àggee foofu nag day xaar rek ndaw si séq ak borom këram bu séq borom këram nag néew maanaam euh, mani boobu di jógee ci góor gi dafa am ay wallax njaan wallax njaan yi buñ tàbbee ci ci nen bi rek nen bi day daal di tëju daal di dem ci li ñu fi ñu tuddee ji daar raxma su foofu nag day daal di day daal di day daal day daal di commencé nag kon doom sosu na waaye xalaatal nen bi bu ñëwee taxaw nag ci période boobu nag maanaam jëkkër ji siqut ak moom dara maanaam benn benn benn benn supermatozoïde ñëwul léegi su supermatiseur yi ñëwoon nag nen boobu nag day daal di yàqu bu yàqoo nag ndaw si li ñu tuddee ak jidaar raxma ci ci ci ci pëyam bi dafa am parois yoo xam ne day xotteeku su ko defee loolu mooy créer li ñu tuddee dërëtu maanaam mbërëg deret jooju na nga gis nag maanaam daa baaxut ndax xam nañ ne deret ci boppam mooy barab bi nga xam ne maanaam ci lay ci lay ci lay microbe yi di di di defee li ñu tuddee la reproduction ci la ñuy yokkoo ñoom te la ñuy te la ñuy multiplier woo te teg moo tax nag borom xam-xam yi ne nag olama yi ne dafa am lu ñuy calculer millier yaa mooy li ñu tuddee pH ñu ne dafa am lu ñu tuddee pH acide ak pH boo xam ne basique te mooy alcaline ak pH neutre ñu ne pëyu jigéen pëyu jigéen xam nga c'est un xam nga boo xoolee ab barab la ñu ne jamono yi nga xam ne gisul mbërëg dafay nekk maanaam milieu acide maanaam wastul aaridi dafay nekk milieu acide bu nekkee milieu acide nag microbe microbe mënut a dund foofu jëkkër ji mën nay ànd ak soxna si am benn feebar léegi bi xam ne nag ndaw si day gis mbërëg maanaam barab boobu day soppeeku jógee ci milieu acide ñëw ci milieu basique maanaam fu fi der ji nekk su ko defee foofu nag fu fi der ji nekk nag maanaam yi wala microbe yi ak virus yi dañ fay dund nga xam ne léegi borom këram su jaxasoog moom ci période bi nga xam ne ndaw si mi ngi gis régal wala mu yor beeru tubasin bu ci sëyeeg moom mën na caa jëlee feebar boo xam ne musiba naaru laay te eh, gis nga lii xam-xam moo ci agsi ci à partir ci vingtième siècle bi bi nga xamee ne la xam-xam bi ñu tuddee génétique sosu na moo leeral lii kon gis nga ne bi borom bi tabaraka wa faatazilu nisaa fil mahid na nangeen sori jigéen ñi buñ gisee mbërëg wala taqrabuhunna bu leen leen jege hatta na bañ laab te suratul baqara aaya deux cent dix-neuf nga xam na yàlla rek moo moo xam doomu aadama kon gis ngeen ne li waral ndeke yàlla ne jigéen bu gisee mbërëg bu kenn jaxasaw moom ndeke lor da caa nekk te wax na ko wa yasaluunaka anil maxiidi qul huwa azan neel mbërëg day day lor te day joxe feebar kon nag na ngeen sori jigéen ñi bu ngeen ci jaxasoo ñoom kon lii moo tax lislaam ne jigéen bu gisee mbërëg ndeke euh, bu ko bu ko bu kenn jaxasoog moom te waxuma dara sax lii sax bu ko yàlla bu bu ko am feeñul toon sax comme yàlla nee na soril rek soril gis nga yàlla euh, bi muy euh, araamal sàngara daf na faj tànni boobu waaye bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy wax ci mbërëg daf ne daf ne wala taqrabo waaye gis nga njaalo tamit daf ne wala taqrabo zina innahu kaana fahisatan kon gis nga ne yàlla lépp lum ne lum tere loolu lu mu ñu tere suñu njëriñ da lu mu ñu digal suñu njëriñ da caa nekk te itam jullit mooy koo xam ne day jëfe bu yàlla waxee defal lii rek da nga ko war a def ndax sa njëriñ ca la nekk waaye lu mu la tere lu nekk boo ko gëstoo bu ci biir da nga gis ne musiba ci nekk kon nag bokk jullit bokk taalib yi lii mooy li nga xam ne euh, mooy moom la indiloon tey ci wàllu leeral maanaam doomu aadama naka la sosoo wax nañ ko léegi ci waxtaan wi nga xam ne borom xam-xam yëpp eh, yéem gis nañ ci lu leen yéem waaye tim gannaaw lu waral jigéen lu waral jigéen di iddawu waaye lu waral tim góor ñi tere ko mu jaxasoo soxnaam ci période boo xam ne maanaam dafa gis mbërëg wala mu gis déretu wasin kon xam naa eh, waxtaan yi ñoo ngi koy yëmale foofu eh, wa ma zalika àlallahi bi aziizin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you.